à 100 loolu mooy li nga xamante ne moom la bés tey jëlee ci yéeni kaayam maanaam ci xëtu njëkk yéeni kaayam muy euh, journal bi leen di euh, le regard beneen yéeni kaay boo xamante ne wax na ci boobu lépp mbir muy Walf Quotidien euh, moom la tamit ci loolu la daal di wax sa dégénère maanaam mbir baa ngi bëgg daal ëpp loxo loolu daal moom mooy li nga xam ne moom la Walf Quotidien daal di wax ni ki tey jëlee gis ngeen ko ci image bi boo leen ko gisee ngeen gis nag takk der yi ñu daal di kon jàmmarloo wala sax jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay ndaw foofu lay ca diwaan bu Ngor muy nag jafe-jafe bu métti comme ni ñu ko waxee léegi beneen yéenikaay boo xamante ne naka noonu yéen a yàbbi ci boobu la mbir bés bi le jour même euh, ci beneen mbir sax lay daal di wax muy mbirum politique ak taxawaay bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na. jëlee euh, cour d'appel daan na ko Ousmane Sonko muy juróom benn weer boo xamante ne du ko tëdd ci kaso ak li nga xam ne moom moo jëm euh, ci euh, coow bi nga xamante ne mu ngi jóg ndaxte moom dina samp ndëndam wala dina mën a nekk candidat ci élection présidentielle bi ñu dëgmal Ousmane Sonko moom jamono jëlee moom nee na dara mënu ko tere mu doon candidat ci élection 2024 naka noonu moom nee na daal dina def kéem kattan wu ji woo ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ñoñam ngir ñu jàmmarloog gouvernement bu Sénégal ci xoqatal bi nga xamante ne bëgg na ko def ci yéeni kaay bi def di bés bi le naka noonu Barthélémy Diaz ak génnam bi nga xamante ne génn na ko ni ki barki démb bu leen ko fàttaliku Ousmane Sonko jàpp ne loolu ab diversion mooy njiit réewu Sénégal daal di ñu koy forcé naka noonu Yewwi Askan Wi ñoom tamit yéen nañu yàbbi ci boobu lépp mbir ñeel nag li nga xamante moom mooy taxawaay bi ñu fas yéene amal voilà ab doxub ñaxtu boo xamante ne fas yéene nañ ko amal benn ci fukki fan ak ñaar ci weeru bi ñu nekk maanaam ajuma bi ñu dégmal beneen bi fukki fan ak juróom-ñeent di woon ak ñëpp ñi nga xamante ñoom ñooy askanu Sénégal ngir ñu ñëw fekk si leen ci boobu lépp doxub ñaxtu beneen yéenikaay boo wax na ci li nga xam ne moom mooy ndajeek taskatu xibaar yi bi nga xamante ne Yewwi Askan Wi def na ko ni ki démb di l'info moom mu wax ni fi mu nekk ni Yewwi dafay jëm rek ngir daal di euh, maanaam euh, li nga xam ne moom mooy euh, blessure blessure nuñ nan lañ koy waxee ci ci ci. gaañu gaañu gaañu gaañu ok ngoog gaañu gaañu yi nga xamante ne kon jamono jëlee euh, lu jëm ci wàllu politique ak li nga xam ne moom mooy kon génn Barthélémy Diaz naka noonu yeneen i euh, question politique am na ko jamono jëlee Yewwi Askan Wi génn na ni ki démb daal di ci yey euh, yab bi ci yéenekaay bi la di foo gis ngeen ko ci wet bi kii di Barthélémy naka noonu kii di Khalifa Sall Habib Sy naka noonu Déthié Fall ñoom ñëpp yéey nañu yàbbi ci boobu lépp maanaam mbir ci li nga xam moom moo jëm ci taxawaayu politique jamono jile ci wàllum tàggat yaram foofu la ñuy jeexalee càllalum ak mhm. li nga xam ne moom mooy kon yéenikaay bi leen di euh, tribune sport mu indi nag ci li nga xam ne moom mooy euh, CAN U17 ndaw yi nga xamante ne seen at jegagul euh, fukki at ak juróom-ñaar tey la ñuy janoog ak Afrique du Sud ñi ñuy woowee li Bafana Bafana tey lay doon bu juróom-ñeenti waxtu jotee maanaam 19 heures bu juróomi waxtu jotee maanaam 5 heures 17 heures incha allah daañu euh, ñi nga xam ñoom ñooy waa Afrique du Sud ci match de quart de finale euh, ñeel boobu lépp compétition ñu fàttali match boobu match bu bëri enjeu la ndax Sénégal euh, bu ñu gagné dañuy daal di qualifié en même demi-finale waaye tamit dañuy daal di qualifié ci li nga xamante ne moom mooy kon coupe du monde seen catégorie ñu dellu si waat càllalum ak yéenekaay bii di regard